maggal ci yéen jolof di fàttaliku juróomi at yi cheikh ahmadou bamba xaadim rasool defoon ci dëkk bile amal nañ ko ci gaaw bi fukki fan ak ñeenti weeru janvier 2023 di dëkkub dine dëkkub cosaan boo xam ne nii bu am wàccuwaay la ci taarixu murit ci taxawaayu njabootuk sëriñ mbàkke màddina ak waa kër borom daaru moxti ak cheikh isaa kilifa yi nga xam ne nii ñoo ko doon taxawal dikkaat nañ ci solos bis bi waaye dayob dëkkub diine bilee sëriñ bi fii la jóge woon ci Mbàkke Bari wuy ju tubaab bi dellusiwaat nekk fii fii la jóge waat dem njaareem ba ni ko suñu borom wàcce waat ngeen jàpp ne euh, maam Maara Mbàkke mi tax ñu dëkk Jolof bu Bawol Jolof gii la jóge woon gaa jaale ji mbokkum daaraam kon day mel ni lépp ci diine ji walla mbakke ak si lépp Jolof la di bis bu dajale woon ay mbokki taalibe yi bàyyeekoo ci goxo yu fasantikoo ci réew mi ngir ñëw nag barkeelu ci bërëb bu tedd bile ci ndaje mi nga xam ne ni nag ñu ngi ko doon amal diggante nguur gi ak kilifa yi ak taalibe yi waa dëkk ba fàttewu ñu benn yoon fàttali nguur gi jafe-jafe yi nga xam ne ni ñu ngi ko dund. ci yéen dëkk la boo xam ne bu rëy la bu am importance aussi lu mat 17 village wër ko yoo xam ne ay village pël lañ ñoom ñëpp ci seen jubluwaay. te amuñu fu ñu fajoo loolu doyoon waar lool ñu mujj def suñu cotisation suñu takkalaatu ba mën a am case de santé. waaye nag du tee ñi soññewaat ngir ñu gën ñoo jàppalewaat gën a dëgëralaat seen taxawaay ba loolee mën a doon poste de santé ndax moo fi gën a yell waaye yoon wii itam. képp ku jàmbat danga ko jàmbat. ci teewaayu su préfet ginnaaw bi mu yëkkatee ay nuyoo yi bàyyeekoo ci président de la république. ak mbooleem guvernement bi teg ko ci yoxoy sëriñ bi ñoom dégg nañ bu baax a baax. mboolem jafe yi nga xam ne nii Thiène Djolof ñu ngi koy dund. ba ne sax dinañ ci bàyyi xel. rek nguur gi mooy état mu ngi def ci yéen xel mu ngi def ci yéen xel. incha allah li ngeen fi wax yépp dégg nañ ko nekkoon na ci programme ni ko maire waxee bindoon nañ ko dinañ ko topp. bisub màggal gi ci atum 2023 tombé woon ak fukki fan ak ñeent ci weeru janvier dafa nag taje ak bis bis bi nga xam ne nii ci la Cheikhul Khadim bàyyi ko woon ci yéen Jolof dem Njaareem booba ak léegi tollu ci téeméeri at ak fukk ak benn di dëkk boo xam ne ni mën nañ koo boole ci ndonool yoonu murit mu nekk ci yoxooy njabootuk Serigne Mbacke Madina gannaaw yenn ci jafe-jafe yi nga xam ne nii ñu ngi koy jànkontee lu ci mel ni yoon courant akum ndox dëkk ba nag ma ngay màgg ci anam bu jéggi dayoo